kaw suuf li nga xam ne moo koy symboliser wala boog li nga xam ne moom mooy orienter nit ñi ngir ñu jëm ci loolu mooy alxuraan kon alxuraan moom daanaka bisam moom mun tayam ak benn bis buñ ko doon jam gam-gamle di ndokkeel sëñ Abdou Ndiaye bu baax a baax a baax ak mbooleem ñi nga xam ne ñoo koy jàkk jàppale ci liggéey bi ci liggéey bu am doole bi nga xam ni moom lañ nekkee te mooy jàngale alxuraan nekk liggéey bi nga xam ne liggéey féetewu ko kaw kon ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ni xayrukum man taallama alqurana wa allama waxaat ci xadis wa waxaat ci beneen xadis ne ahlul qurani ahlullahi wax xaasatu xadis bi njëkk bi dafa wax ni ki gën ci yéen mooy ki jàng ki jàng alquran ba pare di ko jàngale kon sëñ Abdou am ñi nga xam ne ñoom la am ñoom lañ àndal dañoo jàng alquran dem di ko jàngale wat beneen bi mooy suñu borom ci boppam moo wax ne ñooñ alxuraan wala yonent bi moo wax ni ñooñ alxuraan ñooy ñooñ yàlla ñoom ñooy ñi nga xam ni bu amee kenn ku yàlla di féetewoo ci kaw suuf ñoom la kon liggéey la bu rafet boo xam ni ñi ngi ko ñi ko ciy sant bu baax a baax a baax di wax ni eh, yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko ndax ñoom bu leen yàlla aaree rek lu bare bare bare bare bari dana yéwén boo demee ci masaalikul jinaan li tax alxuraan jàng ko am jàngale ko am solo wax na ni bokk moom sëñ Tuubaa wax na ni bokk na ci li nga xam ne mooy fay may meru bu yàlla yàlla ci kaw suuf maanaam suñu borom bu ko nit ñi di dëkkee di tooñ lii tee muy wàcce yenn mbugal yi mooy xale yi nga xam ñooy toog di jàng alxuraan kon loolu lu am solo la loo xam ni képp ku la ci taxawal mi ngi lay taxawal ci loo xam ni amalee ko fay bu defee kon ngir ñu mën a jàll ci li nga xam ni moom la suñu kilifa bu baax gii nga xam ni moo ñu fi jiitu woon di sëriñ bàyyi Sëriñ Ndiaye di sunu mag di sunu mbokk taalibe di sunu kilifa euh, wax dëgg yàlla li doon taxawee ñun ñoo ko war a taxawee ndax ñun ñooy ay rakkam ñun ñooy ay ndawam yoo xam ne ñun ñoo ko war a maanaam doxal ay yónninam waaye nag ci yoon woo xam ne dafa xaw a kenn ku ne xam ne ndox teg gi yeeg yooyu moo ñu xawoon tax a yeex kon lim fi doon jot a liggéey yàlla ko yàlla fay te la nga xam ne moom la ci yéene woon a àggale suñu borom mottalil ko ko. ndax innamal amalu bi niyaat mu mel ni kon liggéey bi ñu ngi tolloon ci Mouhamadou njaay di doomu Serigne njaay ak maam Faati Diagne mu mel ni moom moo war a dugg waaw moom bi mu jugee bu ñu jugee ci kooku ñëwaat ci Mouhamadou njaay doomu Ahmadou njaay ak soxna aji jonn moom it kon mooy ki nga xam ni mooy ki war a topp ci Mouhamadou Ndiaye mu njëkk ma kon tafaddal maskuran bu ko defee buy jóg di ñëw bu ko defee ngeen takk biir ngeen takk biir takk biir mooy allahu akbar boo leen di sagal di da ngeen koy da koy takk biir bu ko defee pour mu gën a dëppoog li ñuy def kon takk biir leen ko takk biir takk biir bismillah sëñ Mouhamadou أعوذ بالله من الشيطان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 آمنوا معه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أنهم طلاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العظيم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 وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتنا آمنين فأخذتهم الصيحة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 إن الله لعن الكافرين وأعد لهم شعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نشيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليت ليتنا يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى كالذين آذوا موسى تبوأوا الوعو مما قالوا وقال عند الله وجيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم ما شاء الله sëñ Mutalaaka moo ma jàngal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 أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطدنا جهنم للكافرين نزلاً قل هل ننبئكم بالأحشرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا حسبك حسبك sadaqallahul aziim bismillahir rahmanir rahim wa iz qaala Muusaa liqawmihi inna allaha ya'murukum an tazbahu baqaratan qaalu qaalu atattakhizuna huzu'a قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارد ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تومرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لا نجئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم أما من تاب وآمن وعمل عملا صالحا أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما آية الآية وأما من تاب وآمن وحمل حملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ni yàlla ni yàlla bindee nit a tax loo loo baax baax léegi léeg def ay njuumte yonent bi sallallahu taala sallam nee na bu yàlla bindoon nit te du def lu ñaaw kon du jar mu koy bind moo ko bind jublu muy def lu ñaaw waaye dani ku def lu ñaaw ba noppi tuub jëf-jëf bu baax ñooñu la ni buñ defoon ci lu ñaaw dañ koy sopp par def ko tuyaab xam nga kii ndaw la mooy koo xam ne amul lenn lu ñaaw lépp lu njëkk la yal na ko yàlla mot li moom àjji noonu moom moom daa mel ne ci laay boobu la yow gën naa ay wax sant yàlla bu baax a baax ci fekk gi nga xam ne fekk nañ ko lii rek yàlla ci barki liggéeyal kaamil bii yàlla mel ni kaamil ba njëkk a jibbal sëriñ Saalihu ci xabaan mu fekk fa mu ànd fa ak ñaari kaamil muy ñett mu bàyyi ko fa ne maa ngi koy jàppi barkeelu ngir lim njëkk ci kër gi sa kaamil bii nga may jox ne ma naa ko jox bàyyi xale bu jigéen bii ko jàng di sëñ Modou Ndiaye di sëñ Modou Ndiaye mm. moom it ànd naag yeneen ñaari kaamil muy ñett mm. kon day mel ni rek fi fi yoon wala sëñ Saar yu jaare la moom nga jaare li ñii yàlla na ci yàlla defal ay ndam ci barke Seex al yàlla mel ni kaamil yooyu na na na kaamil na ko bii mel ci barke Serigne Saliou Mbacke jërëjëf ñi ngi sant bu baax nag ci fekk yi ñu ko fekk jërëjëf jërëjëf sëñ Mor Teye bisimilah si jërëjëf xanaa ah, ah, di sant rek waaw di sant bu baax a baax a baax baax waaw di sant bu baax lii lañ ci doon séentu te am nañ ci lu kawe suñ jot moom loolu la jàng na ba CM1 war a def CM2 ma dog koo génne dugal ko alxuraan du dugal giit li jëwriñ doon wax la rek dugaluma ko ndax dama ñàkk pexe dama koo dugal ndax dama bëgg lit ma ko dugal moo ma gën gënal lu ma mënti am sama àdduna waaw moo fi nekk moo fi jiitu ay rakkam ay ñaari rakkam ñëw nañ ñoom tamit jàng nañ ba wàcc toppaguñ bindaguñ waaw di leen ñaanal suñ borom defal leen tawféex waaye sant nañ leen bu baax sa ñab yéen moom duma wax ñoo bokk liggéey bi te dañ koy yàgg di ànd di ko bokk waaw ñun ñun ñun ci daara ji ci jàngalekat yi lañ bokk waaw yéen dangeen ngeen di def liñ mënut ñun ñu jéem a góorlu jàpp ci beneen wàll bi mais sant nañ bu baax suñ xool sedd na ndam lu mel nii ci àdduna maa ngi koy doog am mosuma koo am moo ma ko njëkk a defal kon sant rek amuñ leneen luñ ci teg waaw di sant bu baax a baax a baax a baax sant bu baax a baax waaw jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. bisimilah. yal na ci yal na ci barke toog yal na ci barke alxuraan wàcc bu baax a baax yal na ak njotam di njot ay waajuram ak ñi ko doon jàng ko suñ tubaab waxee ca àjjana firdaws yàlla lu ngeen gudd fan loolu te wér teraanga lislaam yàlla dëxañ ci alxuraan rek yàlla na ko am te bokk ay waajuram yépp ay ñu ko ci jàppale ñëpp ci bàkk borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi sant yàlla di julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ñu ngi sant euh, sëñ Abdou njaay moog waa daara ji yépp ndax kii di aadama njaay maanaam waajuram dafa wàcc liggéey Mor Njaay la waajuram tudd ma yor yaayam ma woo yaayam ni ko am na sama doom buy jàng jàngale njaxiraat mu ni ma yóbbu ko fa ma ni ko ah ñoom kat am na ñuy tàmbali weer wu ne nangam lañ fay fay mu ni ma mu ni ma dinaa ko fay te it téereb alxuraan laa yor mu di ko fay ba mujj Abdou Njaay mi ni ma ma ma leeral ko que Abdou Ndiaye ni ma bu mu fayati muy yaayam ji lii nag kenn amul lu ko gën a rëy ñu ngi ñaan sunu borom moom fu waajuram wa tëdd di Mor njaay ñu ngi ñaan sunu yàlla na ko fa barke alxuraan fekk sunu xol seeti na guy billaahi sama xol sedd jërë ngeen jëf sama xol sedd baax ñu tamit jërëjëf jërëjëf soxna si jërëjëf soxna si jërëjëf yàlla na ko muur lu wax bàkk borom Tuubaa jërë ngeen jëf maître kon ñu ngi sàggalaat bu baax soxna Adama ñaan yàlla suñu borom def ko magum lislaam kon ñu war cee teg non kii wax na ko ah, maa ngi jégalu ci kàddu yi ma nar a yëkkati sama kilifa lu nekk ci ñun moom moo si moo moo ko def si ñun tey jii bu doomam demee ba def lii ñu ndax wax dëgg doom moom fi jiitu woon bu gis nekkin bu rafet bi mu fi nekkoon ah, ah, ma man mu jaar ci làmp géey mi sama doom ñëw fi moom tamit gis li bu jógee ci daara ji ñëw ci kër gi melokaan bi muy mel ak moom ni bëggee alxuraan man maa ko fexe ba nga xamante mu jëlaat daanaka njabootam yëpp jël leen indi fii kon nag bu ñu demee ba nga xamante yàlla dimbali nañu ba doomam wàcc alxuraan ba di ko tari dañ ci sant yàlla bu baax di ko ci sant di ci sant euh, Lamp Gueye mi euh, di ci di ci kontaan bu baax vraiment sant nañ bu baax sant yaayam ak magam yu jigéen yëpp moom nag moom ñu fayam wax dëgg fa yàlla amuñu fayam ndax lii mu def nii sagal ñu sax jox ñu kàddu bi wax dëgg yàlla gis na ci ñun trop gis na ci ñun ndax ku la yar daf ci yow lépp tey jii bu jël hmm. njabootam nga moom ma nga toll ni xaman ba nga toll ni moom bu yëkkatiwaat njabootam daanaka tegaat ko ci sa loxo amatoo amoo fayam hmm. ñu koy ñaanal yàlla ni bëggee alxuraan yàlla gën ko yàggal ni muy toppatoo doomu aadama yi yàlla gën ko fay ci mbiru doomu aadama yi yàlla gën ko fay yàggal lu yàgg-yàgg ba dund ba dund sàpp ci bàkk sëñ Tuubaa ñu ngi koy ñaanal moom ne nag mënuñu wax ci moom wax dëgg fa yàlla mënuñu wax ñu koy bàyyi ak yàlla di ñaan yàlla xale yi nga xamante ne ñoom tamit ñoo fi des ñu dem bañ leen di feetal feet yu mel nii ndax ñun lii rek lañ am alxuraan kese lañ am yàlla na yàlla gën a dolli xewal baax wax na dama cee mën a wut xanaa ma bàyyi maam lamp rek bu jëm jee dugal ay kàddu mooy diplôme bi gën ci diplôme yi muy na beneen diplôme nag muy diplôme mu nga xam ne yooyu mënut a ñàkk mooy li nga xam ne mooy firndeel ci ay këyit ni ñii kat lii ñu man man nañ te loolu lu am solo la waaw li nga xam ne fu ñu ko présenté ñu xam ne lii kat maanaam du ay waxi kase moo tax ñu ko présenté lii waaye nag lu ñu firndeel la ci ay këyit muy ay diplôme ñoom ñooñu dañoo war a jege jege si waat pour ñu jox leen seen i diplôme ci kanamu seen i jàngalekat kan ci waaw soxna Matian. sëñ Moussa man kaamil bi dañ koy jébbal sëñ Mame Mbaye mi moom Baye Mor mii sama ñooy ñooy samay woy ji nag da leen koy jébbal ñoom ñu jébbal jébbal ko xaar alhamdulilah rabbil alamin sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne Touba bu baax a baax a baax ak Cheikh Ibrahima ah li ñu def nii ñun ñi nga xam ne ñoo di mbokki Abdou Ndiaye teew fi tey di mbokki jibi jur xale bi amuñu seen pay amuñu pay boobu dañ koy ñaanal ak moom li ñu def mooy dañ koy ñaanal ak ñii nga moom la àndal ci daara ji ndaxte kat wax dëgg yàlla lii jibi mi de léegi liñ doon wax léegi dama ca d'accord liñ ni koo xam ne si alxuraan dafa laa rëccoon te dabaata doo sa doom gëmoo ko loolu dalu moom dama naa ni jàll waaye doomam bi lim ci ñàkk li mu ci ñàkk ci alxuraan diin buñ la ko waxoon nga ne déedéet jaral na ko lu ne fu ne dem na fa lu ne dugg na ci moom ñëw mu taseeg ëpp mu dimbale ko ci bu baax moom itam wax dëgg yàlla ëpp doon nee na ko bëggum jàngale moom yi ñu gërëm yaayam nag bu baax gërëm ñu fi nit ñëpp kaamil bi nag kenn mën la am lu ko lu ko lu kaw kenn mën la am lu ko féete kaw ndax lu mel nii nga bind ko ñun ñii di bàyyi bi man de mënuma ko mënuñu ko ñun ñii di bàyyi de mënuñu ko kon nag ëpp ñi ci jàpp ak ñi jàng jàngalekat yi yal na leen yàlla fay barki dem dama leen bi ñu saabu saa bi man leen seen Saliou def fa mu ne jéppiwu leen yéen donga yi ndax li ngeen bëgg de li mu bëggoon lépp yéen a ngi ci daara jii nag yàlla na seq yàlla na gën a jëm kanam képp koo xam ne si bëgg nga sa doom tekki bu yeboo nga ñëw joxe sa sa doom wax yàlla ëpp sunu dooma mu waajuram yi fa ne ni nga ko ñaanal yàlla na ko yàlla yëkkati yàlla na yàlla fëgg boppam ñooy waajuram ndax Ousseynou nga fa Mor nga fa ñooy sunuy mag ñoo ñu jàngal ñun ni li ñu xam ak as néew ña ngi ca dëkk boobu. bu wéroon tey leer na ma ni mooy mbir mosul yow ñu xam nga kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant jibi jërëjëf sant nañ la gërëm nañ la lii nga ñu joxe wax dëgg yàlla yow militoo nga ko baax a baax a baax yàlla na yàlla fay leen ñii fi nekk li ci desin mooy ñi nga xam ne dañ fee tare ñu jox leen seen kaamil ak seen i doom liñ leen di man li ma leen di dénk sama xel mu kàpp mooy bu ñu demee ne leen encadré waaye doo dem rek sànni ko bàyyi kaamil ba fee rek bàyyi xale bi mu fu naan di fànn li mu defoon lépp day seey nañ leen encadré bu euh, dëgg bu ñu amee ku leen jàngal xam-xam ñu continuer jàng xam-xam loolu am na ci solo dara ndax alxuraan te wax nañ ni boo ko bàyyee rek mu bàyyi kon nag ku fi jógee sa doom yorub kaamil dem na nga ci góorgóorlu encadré ko ba mu continuer ca lam mu doon def waaye boo ko bàyyee rek ba àddina fëkk ka da nga jéem mel melokaan waxan dara jël te ñuy kon nag ñu ngi leen di sant dog ñu ngi lay sant yàlla na yàlla suturaal dooli sutura si yàlla yàlla yàlla dooli jàpp ndal bi ji bi mii ñu ngi koy sant di jantu toglaan ndax lii kat man bëggoon naa ko waaye omo te naa ko moom maa ko mag ak bi fopp kon sant nañ leen bu baax a baax a baax a baax sunu xol sedd na bu yëg bu yëg jërëjëf a xanaa di sant rek ndax di ñaan yàlla yokk wér gi ak man bi ci barke borom Tuuba ndaxte wax dëgg yàlla de ah xetali ci lu bari wax dëgg yàlla ndaxte lii kat jéem ko waaye mënuñu ko woon waaye fii la ko yàlla dogalee pour nga eggale yéen da ci jàng ba wàcc kaamil bind ko wax dëgg yàlla sant yàlla ah yàlla yàlla wéral ci yi yokk man ngi ci barke borom Tuuba sant nañ la daal bu wér a wér la daal gis nañ daal li sëñ Saar yu taxawoon ci ndaw ñi yow ngi nekk nga ko ci ndaw ñi kon nag yàlla mi yore fay ak jëmi sëriñ Tuuba yàlla yàlla fay yokk man bi ak gudd fan ak wér ci barke borom Tuubaa jërë ngeen jëf kontaan nañ yëpp jël sëñ Daara koy jébbal diplôme bi nga xam ne mooy tegtal ni mokkal na alxuraan di tënku ne ci yoon wi nga xam ne moom la daara ji xal sëñ Keeba ba mii moo koy jox am na fi doom waaye doote na mbaraka moo tax ma bëgg mu jébbal ko diplôme ko mokkal na alxuraan benn bi diplôme mémorisation la mooy wane ne moom mokkal na alxuraan bii diplôme d'excellence la mooy wane ne maanaam xarañ na ñaari diplôme yi yàlla ñu ngi ñaan mu ko te lépp lu ñu njort ci xéwal mu am ko ci ci àddina bokk kook njabootam bokk koog ñi ko formé bokk koog société bi ci àddina ak ci àllaaxira loolu lañ ci doon ak tënk ci wax dëgg sant nañ la bu baax ndax boobu ñu ngi génn fii fu na xaw ma la waaye xam naa ne te a dégg yàlla yàlla ñu ñu ñu def daara jàkka joo xam ne sàkket la ba noppi dëkk ay tabax. bu baax nga dëkk bu mu man a doon nga dem jàkka ja sàkket dëkk ciy tabax loolu lañ def dafa araam ci xeetu kon daa ne xam na loolu moo taxoon sëñ Modou si mii nga xam ne moo ñu doon jàngal ñu bëgg sëñ Cheikh Mbacke sa nekk waaye sëñ Cheikh Touré mii jamono bi ñëpp tamit fi la fi la ko def tollu ba day mat weer dana demaat euh, xel kom ngir faji même wàllum dellu ñu yëngul ku nekk la daan teg xam na moom si Cheikh mi sëñ Bada moom moo ko ko fere moom mu ne ne moo tax nag ñu ne nañ ko jox diplôme bii ngir ak yaatam ak baaxam ak taxawaayam rawante na nag ci sëyu jox ko bosam yóbbante ko kase bosam dañ xam ne liñ jublu woon ak liñ naan ak liñ bëgg ñu ci ànd ak ñoom yàlla seen bëgg nuyu na nuyu na. sant yàlla bu baax a baax. son. Mourala. ay wax bu baax. asalaamaaleykum wa rahmatulah. sëñ Abdou ñu ngi sant santati yàlla bu baax di sant sëriñ Saliou Mbacké bi ñu boole. ci teraanga ji nga xam ne jox nga ñu ko li nga jot di ko docteur Kassé bi nga xam ne ni nga ko waxee daara ji moo ko tabax ci war koo teg ci loxol Serigne Cheikh Touré bi nga xam ne moo ko fi wóotu tey benn te moom nekk fi ñu war koo jox waaye balay booba ko ci ay kàddu yu néew rek xam la ne sëñ Saliou moo moo mooy mooy ku yéeme yéeme yéeme ndax kat sëñ Abdou ak mboolem ñi nga xam ne ñoo fi yem tey ñi waandal ci daara ji ñi ñi defi jàngale ak ñun ñii ak sëñ sëñ docteur nga xam ne moom moom la jox kàddu bii tey ak sëñ secteur bi amu ci kenn koo bi kon cant yëpp dañ koy delloo ci sëriñ Saliou te di ko ñaanal yàlla ci barki Seexul Xadim ba mu nekk lépp lu yàlla dolli euh, jàmm bu mu di ko dolli sëñ Saliou ci saa bu ko jox mu ful ful ko ba lan lan ci am mu ful ko door ko yor euh, di xam le ne kon ànd ngir yàlla rek moo am solo ndax ñun ñi buñ doon seet lu ñu boole lu dul sëriñ saa yu amul du ci mbokk du ci leneen ndax sëñ Abdou ñi fi teew ci ñi nga xamante ni ñoom ñoom la bokkal ci wàllu askan bariwul ñi mu bokk ñi mu seqal sëñ nekk kon ànd ngir yàlla mooy li am solo kon ànd gi yàlla na yàgg te ànd yokkute ak mucc ak njëriñ ci dara jee Seexul Xadiim sëñ bi ñu ngi ñaan daara ji yàlla ni daara ji yee nga bàyyi ko ca xel ko te te dolli ko ci gërëm yàlla ci dara jee Seexul Xadiim kon euh, nga jàng noonu lépp ak cant la joo goo xamante ni mën naa ne suñu loxo la bàyyi ko waaye sëñ Saliou moo moo moo leen ko jox luy luy luy luy day firndeel ngërëm loo xamante ni amee ngeen ko ci daara yi nga xam ne yéen a ngi si yàlla loolu rek lay xel na ko na alxuraan ko gis ñii naafile ci koor gi bokk na ci ñiy naafile mi ngi bind nag des na tuuti diplôme bi mooy tegtal ne mokkal na alxuraan bind ko dese ñu ne nañ ko jébbal ci kanamu baayam dañ koy jox lamp gi mii nga xam ne mel na ne moo sos daara ji mu jébbal ko maa ngi jiitu di ziare yéen ñëpp rek leen ñaanal di ñaan yàlla na doon jiglaay ci jottali yi ëppante bu maanaam mi ngi sant ñëpp la mi ngi sant ay waajuram di sant mbooloo bi yëpp ngir xëy na wax ci mbooloo bi day xaw a jafe ci moom di ñaan Baye Modou mi yàlla na ko suñu borom defal ngëneel yu yaatoo yaatu ci barkeb Cheikh Khadim defal ko mbooleem daal ak mbooleem jullit wax dëgg yàlla macha allah rek wax di santate rek lépp daal sant dong dong dong la war a doon te eh, lépp ak cant la li Sëriñ Tuubaa sant loo daal ci ci weer wi nii bisub 18 safar ñu ngi koy fesal suñu sant ci bis bii nii ñu ngi ko ci fesal bu baax a baax a baax di ñaanal seen at bu wér a wér di ñaanal ñëpp rek jërë ngeen des bu dee ñuy ci daara ji nag man mii nga xam ne maa jiite daara ji mën naa leen koo jox directement sëñ Moussa Diop nga anam maanaam koo xam ni li muy daj ci daara ji fay joxu boppam moo tax ñu jox ko lettre diplôme bi ngir ko a bokk xeet wuñ leen joxe diplôme bii maanaam nii ngeen di doxe fii ku waay doru ci àll bi boo ne doxee mën ngaa tette mbooloo. macha allah. ana sëñ Mahmoud. ana Oustaz Mahmoud. moom de xale la. liñ ma koy présenté dañ ma ne boo gisee jëmm ji day mel ne xamul dara waaye boo jeqee biir gi di nga xam ne lépp lu ñuy xam a ngi ci moom. yàqu bi loolu nag moo tax ñu ne diplôme bii lañ ko jox bi ma koy door jël moom mi ngi doon jàngale fële ci benn internat bu nekk Tassette ci côté Tassette waaye bi ñu xoolee liñ ko doon fay rek. lañ ne nañ ko yokk ngir ànd ak moom xam ni sëñ Saliou ku ko mos keneen koo mosaat loola naqari ci yow. diplôme bi ñëw ko gërëm. góor waay. sëñ Saliou sa yoonam maanaam moom mii tamit ginnaaw bi ñu sartante nag ñoom jàngal jàngaleem alxuraan yi mu ci waaye wàllu yar ko si demi moo ko yore ci daara ak saytu xale yi ni ñuy doxee moo tax xam nga mbir lu ñëpp bopp kenn koo jot waaye bu benn rek danga moo ko war a gërëm ko moo tax ñu ne nañ ko jox diplôme bii moom mii am nañu doon tara ñoo xam ni seen doomi mag la yoo xam ni maa ngi ñoom ñoo nekk ndoo woon ci daara ji yaakaar naa suñu mi ngi fi xam nga nag nekk ñu ci daara am doom joxaat la ko loolu yaakaar naa dara daf ko ci xol ñoru gërëm a nekk ana sëñ Ousseynou Ndiaye kaajal nag ñëwal suñ nga kaay kaay jëfal ma kii ñëwal rek. ñëwal rek dama lay joxe loo mën nga ko. taxawaayam daal ci daal ji daanaka mooy borom daal daf naa la ko bett la waaye dañ koy jox rek xamal ko ne ko taxawaayam ci daal ji di juddoo neex nañu lool ñu jox ko ngir ànd ak ma ci. ana sëñ Saliou Touré ana sëñ Saliou Touré diplôme bii nga fekk def ak mokkal li ci des nag arab rahman yow mii lañ bëgg a joxoon yow xam nga ci xasida ngay say ngay gëstu waa ji moo la dàq jàng xasida <laughs> ma bëgg nga jox ko ñaari diplôme yëpp mooy sëñ Saliou Touré ñi nga xam ne suñu sang ba la ñuy tuddee tamam ma ngi ñaari béy waaw jeexit bi de moom dana jàng a ala sëñ am Mohamed Amen Mohamed Mbaye. sëñ Sadio. Mohamed. sa gars est-ce que mën nañu. ñoo gaaw ñoo gaaw ñu gaaw tuuti. ñoom mën nañoo kuréel. lamp gay mu daw. nañ ko wane. lamp gay daw dina gaaw tuuti lamp. ana lamp. lamp Lam moo woon naa ko mën a dégg. Lam maa ngi nii Lam xam a bokk tur vraiment def lamp ngay dong nga def lamp Fall Baye lamp Baye Fall. yéen ñëpp moom mii itam xale yi fi ñëw daanaka ñëpp moo yi bi doon tari. nga xam moom xale yi yëpp jaare ba ñëw ci moom mii nag dafa jàmbaare lool ndax maanaam kër gi lépp luy teg nit ñi moom lañ ko teg ko a ko wëndeel ko ndax nu foto leen baax na baax na baax na baax na lamp lamp baax na lamp pour bëgg a comprendre voilà lamp del comprendre yow lumière lañ la tuddee mooy nga xam ne Baye Baye Baye Mame Ndiaye mooy mooy kilifaam. di borom yi lañ a jëmbale. macha allah moom moom yaay rakkam te bi moo taxoon ma ko nga jëmbal nga jëmbal moom ala adama. moom itam ñaar ñaar diplôme lañ koy jox. benn bi mooy wane ak mokkalam alxuraan. Baye Mor ngay moom beneen bi ci des xam-xam bi ñu waaye bu la bu ñu ko doon laaj ci diine dana la ci tontool lu bari waaye nag waxtu bi la ko laaj moo taxoon ñu tàyyee jàll ci loolu waaye comme comme Baye Modou mooy dem ci suñu wëy bi moo tax mu ñu ko am xoolal xoolal ci aar Ndijaay Ndijaay Ndijaay Ndijaay Ndijaay Modou Ndijaay kaay sëñ bi kat laa bëgg nga jébbal bi day aram am day aram jiw day aram ay ay am kaay maanaam nday aram nday aram mii tamit moom moom Samba Diop moo ñu ko joxoon daanaka mën nañ ni moom moo sañ ci daara ji waaye nag mokkal na alxuraan ba mi ngi toll ci bind moom moom ko mooy ki ko def gën a def ci ci daara ji yaru moom gën a def moo tax ñu bëgg euh, bi téléphone bi nga xool voilà. mari ni taxaw na mo def gar yàlla mu mu tollanti balaa yàgg fasal ko ci ak tollanti ah, fasal ko ci mu tollanti comme daa baax ndax sëñ Modou moom mii nag indi ba yàgg mu jël njabootam ci boole leen indi moom mii nag comme noppi na ba bind kaamil ñaar ñi des nga xam ne moom yi moo leen bind ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ngi ñi ngi toppaat dëgg yàlla wàcc nañ bay delloo moo tax yow mii nga xam ne yaay tàntal ma bëgg nga jox nga nga ngeen jëmbal ko diplôme bii day fekk ne xale bi mokkal na alxuraan tey fi mu war a jaar yëpp jaar na kaay ni kaay ni ñaari diplôme la fii mooy tegtale mokkal alxuraan fii di tegtale soxna Ndeye Sini Fall Ndeye Sini Ndeye Sini Fall pour ragal yi anam Ndeye Sini Ndeye Sini Fall daane wala daane lii dañuy xalaat yoo xam ne dañu def parent délai bi association boo xam ne ñoom ñoo koy jiitu waaye bu ñu àggee rek danañ xool nañ koy def waaye seen bëgg lu baax daal moo tax ñu jox leen ñu jox leen lii ak taxaw bu ñu ko taxaw daara bi kii nag sama yaay moo tax ma ne day si mu nar a bëgg ana yaa waaye may ko may ko bu baax a baax man kay ñu ngi leen bu baax a baax di yow taxawaay bi nga teg sa tànk de foofu la dama si taal weerewal rek. demoo rek bàyyi ko demoo benn sa yoonu bopp dangay def sa yàlla tax kon li ngay def sa yàlla tax di ko def ci diine di ko def ci xale yàlla mi am fee yàlla la fee donc lay ñaanal fan bu ànd ak wér ak wér ko saawa saawa yaakaar nga ne xamal bi nga fi nekk bu talaat di leen ñaanal bu baax baax yàlla may leen wér ak jàmm ak xéewal kon ñoom ñu dem waaye li leen ci war moo la ci war kon ñoom ñoom ñoo koy def ñun ñu leen ko def ñoom sant kii nag mooy yaa Ami Diop moom mooy mooy sama yaay. moom bëgg na nga jox ko micro bi ñu jóge ñu sargale. waaw. nit laa bëgg nit laa bëgg yar xale laa bëgg wàññi nit laa bëgg nga yaatal noonu laa ko bindoo ndax bu ko bindoowul woon ne gannaaw sonn ndax man am jaay ma xam te ñun sa kër ga xam nga ne man yor nit laa man yor xale laa waaw yor xale laa ba muy jógee ca daara ji ñëw fii ba suñu joonne tey musuma sonal dara musuma daw daara musta sonal paspam ko na hani paspam sëñ bi dong doy noonu ko ko suka ben kan yim ni loolu nag taxawaay yàlla na waaw may leen tuuti waay may leen tuuti yàggale waaw salaamaaleykum. mbooloo mbooloo mi ñu déglu tuuti rek. ak kàddu yi tënk na ak sant. suñu Modou Samb mi nga xamante ne ginnaaw yàlla xës de moom la ci suñu borom jiital ak suñu maanaam ak suñu maam yàlla. nga xamante ne nit ñi ni ñuy nangu Abdoulaye Diop ak tamit say Matar Dieng. ñoom ñoom ñoom lañ leen di nangu. moo tax suñu mu def. man comme que gis naa gis ni man jàpp naa ni amul ko amul ku ko ëpp bés. ci daara xalaat boo gis ci daara ji ci bari moom jàpp na ci ci wàllum xasida yi xale yi di ko jàng man ci moom laay dégluwaat di ko répété xale yi ñu koy man di ko jàng anam bu neex boo xamante ne bay yi nekk daara ji sax daan daan am at yu bëree bëri bëri te duñ ko mën a jàng yoon waaye xale yi suñu borom defoon na ma ci tawfiq ba. yàggut waaye mën nañoo jàng xasida ba comme ni ko waa daara ji daan daan jànge te loolu ginnaaw ba li tax ñu mën koo am mooy ci moom ci la bàyyi ko ndax ay kasetam yi nga xamante ne moom jiitu na ko di ko jàng ci moom la ci moom lañ koy déglu ma bëgg nag ñëpp xam ne moom daa lu woyof na ni amul ku ko ëpp daraja xasida ku ci nekk amul ku la mën a ful daraja fii ci àdduna ak àllaaxira mën naa nuru nag lu woyof nit ñi xamuñu waaye Abdoulaye Diop tey jii bu duggoon fii rek ñëpp lay naan Abdoulaye Diop ak nii kenn ku nekk naa kaw waaye moom mii dugg na fii te ñëpp kenn xamuñu waaye li man Abdoulaye Diop mënu ko maa ngi Abdoulaye Diop mënu ko loolu laa bëgg ñëpp xam ñu ngi sant bu baax nag fii si ñëpp moom moom ci wàllu ah ñu ngi jaajëfal mbooloo mbooloo yëpp nag fii ah, di leen waa daara ji ah. di sant bu baax nag xam naa ne lii moom yéene la rek waaye xam naa ne lu jëm moo fi def waaye nag ñu ngi ñaan yàlla suñu bopp yokk leen tax teg leen loxo bu baax te gën leen a euh, sàmm sàmm sàmm doonga yu baax yi lépp luñ ciy mbir loolu dafa lu kawe jot barke Sëriñ Saliou ñu ngi am mbégte baax a baax di jaay ñëpp di jégalu ñëpp. billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت واتبعوا الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نري تقلب وجهك في السماء في السماء فلنولينك قبلة ترضيها فول وجهك شطر المسجد الحرام وأيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعدهم بتابع قبلة بعد ولئن اتبعت أهواءهم من بعد من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين sadaqallahul azim takbir وإذ قلنا كذبوا تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل تحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق ويعقوب ولسنا أسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم ما شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو مغردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راهون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس فيه خالدون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 أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها وجاء بأسنا بياتا وهم قائلون فما كان دعويهم جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ثم بكم عمر فهم لا يرجعون أو كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون يجعلون أصابعهم في آه الرحمة حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مصوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو موردون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم macha allah takbir. faratay jàpp soo koy génne sa aay bi moo ngi juróom juróom ñett la comme nga ne yaa ayyuha alladina amanu ida qumtum ila lsolati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ruusikum wa ajlukum ila alkaabayn bi si jiitu mooy yéene raxas sa kanam ñetti yoon raxas sa loxo ba sa conc ñetti yoon masaal sa bopp raxas sa tànk bomb gaaw xàlli baaraamu loxo yi masha allah waaw loolu de am na solo loolu koy faratay njàpp أعوذ بالله من هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم ياتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت لم تكن آمنت من قبل أو كذبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هديني ربي إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم تكبير waaw kon at la fi def xam naa daara jeexal xam naa alxuraan jeexal moo tax ba yaakaar ñaari at la fi def kon bi ngi bi ngi noonu bisimilah kon yaa ngi ñu war a tari suratul Talaq bisimilah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 وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يعرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يوقس بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يعتذر ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حسبك صدق الله العظيم جرجف سرين صالح الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي إنصار جعل لك غيرا من ذلك جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وآثرنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد ترموا لا تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين فريقا قرنين دعون عليك ظهورا لا تدعوا اليوم ظهورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا قل ذلك خير أم جنة خلد التي وعد المتقون كان لهم جزاء ومثيرا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 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليعاجوكم ليعجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم jafka ga ak melawa ak xet soppeekuwul waaye li ko soppi daa dëkk ak moom yu mel ni lu mel ni xorom wala yu mel ni suuf su xonq wala ceeb bu ma jugee ci lool nag ma jàll dénk leen kàddu yi mooy ngeen sàkku xam-xam ndax yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam nee talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun sàkku xam-xam farata si bépp jullit bu góor ak jullit bu jigéen ndax loo xamul lu ne doo xam niñ koy jariñoo mën naa bañ xam ndox mu mën a sangu wala tamit nga jël nga fekk ndox mu tege rek nga jël ko dugal sa sa loxo noonu saa nga dëngal siwo bi nga raxas comme ni ko Yaasin waxee woon moo tax loo xamul loo xamul lu nekk doo xam ni ñu koy jëriñoo. macha allah soxna Xawa. shaytaani rajim. bismillahi rahmani rahim. قل يتوفيكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ربنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب القرد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم ما شاء الله تكبير waaw kon amagu fi at xale yi nag yenn saa yi dañ di de moom ñoom xam nga seen i at ak seen i weer moom moom daanaka moom xamul fuy metti moo tax yenn saa yi dañ leen koy <laughs> xam na <laughs> waaye nag yàlla baax na moom amagu fi at sax waaye nag xam naa at yi ay weer la ko jàppee daara ji nag xam nga yenn saa yi bu bu kii loo fi def rek da ngay jàpp ni daa yàgg da fekk yàgg kon bismillah yaa ngi war a tari rahman bismillah أعوذ بالله

وما رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الرجال من ماء فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم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 على هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلنا أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين حسبك صدق الله العظيم تكبير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 النجم الصاقب إن كل نفس لما عليها قافز فلينظر الإنسان مما خلق خلق من الضرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى الشرائر أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون عجرا معجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 لكم في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هدى مرسول من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهب وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغزيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. ci wàllu nasaraan ci fan yi nga xam duñ def dara. loolu lépp yàlla dimbali nañu ba niñ ko bëggee woon am na maa ngi koy wax sëñ Modou si nee naa ko bis bi bi sëñ ma dem si ñëwee ànd ak moom ba nëgë ni jafe-jafe boo xam ne dinaa ko jàmbat ci dund ci daara ji amul loolu lépp nag amut ñenn ñu ñuy financé amut ñi ñuy ñi ñu séqal daal mooy ñun ñi suñ biir ak waa daara ji ñi fi indi seen doom ndax bi may wut kayiti daara ji dañ ma laa laajoon mooy daara ji fu mu nekk nga wax noom toll nga wax noo ko tabaxee nga wax ñan ñoo fay dëkk ñaat lañ nga wax lu ñuy dunde nga wax foo koy jëlee ma ne ko ci ñun lañ koy jëlee waaye wax dëgg yàlla li ñuy dunde parents d'élèves yi ñooy def lépp gis nga bis bii ngeen di gis li ko defar ci xéewal lépp ci ci ci ci ñu dox seeni doom ci la jóge te de moonte mooy li Mahmoud doon waxtaan ci muñ léegi leen nit ñibbi day gis ni dóor nañ doomam waaye tax mu jàmbat xanaa bu demee day sangaat defar ba mu jekk rek buy ñëwaat lu mu yor ci àddiya mu joxaat ko ni na ni na ñëw jàng si moo tax saa boo gisee nit am xam-xam xale ba muñ na way juróom muñ na ka koy jàngal muñ na fii de am na ñoo xam ne dañuy jàngale waaye léegi leen ñëw ni ma diw jàpp nañ ne du mokkal alxuraan waaye fii man leen suñ ma dem si diggante bi mu fi ñëwee dane ma ci xeeb yokk araf par bis benn araf rek ku koy yokk jàppal boo taaba yàlla mën naa dem ba ubbi mu xolam sant nañ ñëpp mbokk yi ñëpp man man ñi ma bokkal bi ñu yégéen ni lii dee am ñëpp ngi moo Mor mi mi ngi fi ndax mooy sama rakku papa dafa wérut moo tax ñëwut ànd ak baa baay Mame Mbaye Sylla ñoom ñaar ñii nag ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñi sëñ bi teel a ràññee lañ ndax ndax sama baay nee na ma sama sama boog dem daara mu ngi jógee ci ba Baye Mame Mbaye Sylla mii la àndaloon toolu xabaan di ko liggéeyal mu gis jàmbaar guñ jàmbaare ci la ko laajee ne ko nag ko def moog Lamine Faye sama baay leeral ko niñ demee ne ay rakkam lañ ci la sàkk woon ni saa bu amee doom nag ko def moo tax ñoom bu ñu ñëwee ci bis bii day doon bëtt lool lool ci ñoom ci sant bu baax nag ñi ñi ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal di liggéey fii ci daara ji xam naa daal suñu borom lu mu dogal lim ni da koy yombal da koy yombal ba fokk di nga ci sóobu te boo ci sóoboo di nga ci am ndam moom moo feeñ ci ñi nga xam ne ñoo seq ci daara ji daara ji daam ñu fiy jàngale waaye ñu bëre ko seq ay sëñ mat sambu ma jox ay sëñ abdourahman ak ñi ñëpp boo gisee xale yi teel a xarañ ci njàng ñi ko seq a tax suñu way juri jigéen yi tamit ñoom ñëpp ñëw nañu ak sëñ abdou fay mii nga xam ne moom moom daara ji yaakaar naa koo xam nga xam nga ko sëñ xabaan mii tamit nga xam ne mu ngi jóge cees te sama rakk yëpp moo moo leen yor dalal leen tëtt leen ci njàng bañ àgg fii mu jàng fii mu fii mu àgg moo tax bu leen gisee suñu xol day sedd lool waaye sant nañ way jur yi sant nañ leen bu baax te xale yi de lépp luñ am yéene nañ leen lu góob ndax xam-xam ñun dañoo xam njariñ li mu am dañ koo xam xam ngoo xam ni mënoo koo leeral ci xol léegi la ko la ma ko sëñ Modou si mii doon wax ni ma ñun luñ sant suñ seeri wu doy waaye xam di ko récc du am mukk xam rek rawante nag xale bu amul lu mu liggéeyee moo tax jox gi ngeen ñu ko jox ñu toll ci jàng ñu jàngal leen am nañ ci mbégte lool ñi ngi sant ñi ngi sant bu baax a baax a baax sëñ Cheikh Lo mii nga xam ne xam nga ñun fi ñu dëkk mi ngi tudd ci Cubbeen mi ngi ci mali Malikounda sëñ Babacar Lo moo ko sanc moo ko sañc ci ndigalul ndigalul Cheikh Ibra Fall moo tax dëkk la boo xam ne ñëpp ay Baay Fall lañ waaye waaye sëtam mi ngi nii toog mooy sëñ Cheikh Lo mii toog dafa ñëw rek ngir xoo ngir ñëw ànd ak ñun bis bi bokk ak lépp moo tax moo tax moo tax soxna aadama bi di kaamilam bi ma ne ko nag ko jox ngir ak mbokk nag ko jox ngir bëgg alxuraan nag ko jox itam ngir leen jële ci maam Cheikh rek maam Cheikh Ibrahima Fall ki nga xam ne mooy sama rakku yaay itam muy muy muy sama ndijaay Modou Gueye moom itam bi mu yëgee kii rek la ñëw bu dee paaraay nag moom du ma tudd bàyyi kenn ay wóor na wóor yàlla ni fi toll lépp loo xam ne moo defar bis bii lépp ci parents yi la jóge te wóor na ma wóor yàlla na ñoom yéene nañ ñu àdduna li ci biir waaye lu ñuy yéene ñu ngi leen di yëgal ni yéene nañ leen ko lu dañoo bëgg rek li ci li ci des rek suñ Fallou Ndiaye di làq xam nga Fallou Fallou Ndiaye Fallou gis bu lay wax waaye man xam naa ne ma bàyyi aw turam ñoom ñoo sos daal yi mooy mooy papay day màggat ak ak ak ak ak soxna Fatma ñoom ñëpp suñ këram lañ bi ma ñëwee Fatma dëkk fa moo gis niñ mel mu sàkku ni ma daa bëgg dëkkal man moo taxoon ma dëkk euh, Frédéric Mermoz moom moom moo taxoon ma dëkk fala dëkk moom ba fii ma dëkk ñoo dëkk moo tax bi ma soxnaam naan léegi-léeg day guddee ma ne ko guddee googu mënoo koo jëlee ci moom ndax li may def lay def dañuy guddee waaye li ñuy guddee loolu dara loolu liggéeyal sëriñ moo tax ñu ngi koy sant di sant mboolem koo xam ni daal yaa ngi ànd ak ñun ci daara ji tey sàkku ñaan rek ndax yor daara daa am ay conséquence yu ci am te bëgg nañoo àggale liggéey ba fu kawe njort te ci am benn gàllankoor loolu ñaan rek comment ñi ngi sàkk ngeen ñaanal ñu di sant di sant bu baax a baax jigéen ñi jigéen surtout jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara bi ñu doon ne bi ñuy bi seet bis bii bis bii nan laay def ba mu yéen xam nga parents d'élèves yi dañoo waxtaan ci groupe bi ni bu kenn ku ne joxe woon ñaari junni dana yéen waaye sama soxna nday màgg di fukki junni la ma jox fukki junni la ma jox doora jënd leneen aji nii tamit lépp loo yaakaar ci xaalis ak ndugg ak nangam boobu ba léegi ngi ciy liggéey dama leen a tudd nag waaye waa kër gi kenn des ndax kër la boo xam ne amut amut amatul juyoo bu dee ñoom mama ñi fi nekk ak tabara ñoom ñëpp tamit benn doxin la léegi leen nit ni ma ana tabara ak awa mi ñu dendal ak ñoom ñëpp benn doxin lañ Asou Ndiaye moom ba moo fiy liggéey waaye ku xamul da ngay jàpp ni daam lu ma ko warul waaye daama loo def baax moom moo reyam ngir ngir fi paree baax waaye sant nañ sant nañ sant nañ bu ma daal dana am woote wóote waaye sëñ Cheikh sant nañ te de buñ sañoon seen doom yee leen di gën ñoo ñuy gën ndax ci nit laa jaaroon loolu daa doon responsabilité bu rëy rëy rëy suñ ko la daara ji man man du ma nelaw ndax toujours maa ngi xalaat xale bi lu koy dal wala lu koy jot wala luñ koy dégg waaye buñ jëlee feet nii ba ba man rek nekk ci daara ji rek bis boobu rek laay nelaw du du ñàkk dund mooy méttiwaay gi du du lenn waaye responsabilité moo diis mooy téyandoo fukki xale ci kër bu dara dalee yow nooy loolu responsabilité bu diis la xale yi dañuy jël feet bu ñëwee nga gis kii dagg kii dara dal ko kii dara dal ko ñun ñi leen baaxoo dëkk nag bu ñu yàlla suturaal nii yàlla képp lañ koy lañ lañ lañ koy sant imal abi silmaanihi yuxni anil madaafi li kulli abdin xaashin yaddu bu xëy de ci loolu lañ lañ lañ sukkandiku ci lañ wéeru dama bëgg ñu jox xale yi ñu jàng ñu jàngal ñu moom moom moom moom ñuy jàngale français ñun fay ñu leen de siñ la bul bul yaakaar dama leen di fay muy bàyyi seexal monsieur Ngom xam nga lañuy ñuy daj ci xale yi ci jàngal leen français fay ñu leen de fay ñu leen bu ma leen doon fay lu ma ko man ndax daara ji nit xam nga cinquante sept personnes moo fi nekk maanaam juróom fukki nit ak juróom-ñaar ñoo fi nekk ak ñeneen gis nga fii mu toll li ñuy li ñuy sóor ci ceeb ak li mburu mburu mburu maa ngi ciy fay weer wu nekk euh, cinq mille par par par par par trente ñàpp la loolu loolu ngay fay ci mburu kese boo siitee li ngay fay ci diw noonu keroog bi ma bi ma ndey màggat ne looy fere da koy def bi ma bi ma totaalee xool li ngay fay li ngay fay ci courant li ngay jënd ci gaz mburu nangam maanaam li may jot barke sëñ Tuubaa lu bari nga ciy yokkaat pour man loolu loolu lépp nag te te du tax ñu jàmbat dara sëñ bi lañ koy sant ñaan samay soxna xam nañ ni bi may door a sant ci daara ji dañ ma ne woon waroo woon a dugg ci ndax laataa li nga li nga mënoon ci kattan tabax kër def nangam nga ñëw lépp ngay mala ko ci njëlbeen nga la méttoon naa fi mu ko wóor na ma wóor yàlla lu may tiit ci àddina amul bis bi biñ koy waaj dama ne woon bëgg naa ñu def ko ma dégg ñenn ñi naan màggal gi jigéen a nangam moom dañuy teetu man li ñuy dundale moom du ma ko tiit ñuy def bam jaar yoon rek laay tiit ndax jaar yoon fokk suñu borom féet la fam la far asalaamaaleykum kon nañ ñaan euh, sëñ laaj sëñ laaj dama xam nga ñoom am na ñoo xam ne duñ bëgg ñu yàlla xam na ndax koo xam ne boo ko wooyee mu ñëw ana ñi jàngoon alxuraan ba noppi ana xale yu jigéen ñi ba demee ñëwuñu nag ñooñu nag parfum yi dañoo ko moom am am am des na keneen de ana ana ana ñu góor ñi aram am yëpp ay teraanga la bi damaa euh, damaa mos a gis ñu bind kaamil ñëw jox ko sëñ bi sëñ bi toggal leenu ab añ bu baax am ko ca dugal loxoom waaye ba mu ci dugalee loxoom keroog lu ne solo ko sëñ bi wax ne ko damaa xam ne sëñ sa sëñ Tuubaa bi mu nekkee njaaram ku ko daan bindalu kaamil ba jox ko teraanga jum am daf koy defal man oo ma lu dul sama ko xam ne dama leen a digal la la gën a jafe ñu ko ba def ko ma teral leen ko nga dugal sa loxo bi def ma loolu lu ma naqari la ko wax moo tax nag ñu yore nañuy teraanga lool man de bu ma sañoon tey ku leen jur teral leen Maamin Mbaye yaa yaa moom loolu Baye ana Baye Mbour te ñoom ñu mokkal alxuraan lañu waaye ñu ma a kaas lañu man saa waay ji damay damay sartaas de. ajak leen